ci njiital sëriñ Afiya Bousso imaam mi nga xam ne moo njiit li ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso Moutali mi secrétaire général ak mboolem waa commission sociale et relations extérieures ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen jaajëfal baax ni ñu ko baaxoo nag ñu dalal sunu gan ñu tedd yii nga xam ne ñu ngi bàyyi ko ci dëkk bu tedd bee di Gabon te ku ne xam diggante Gabon ak sëriñ Touba ku ne xam diggante Gabon yoonu Murit ak taxawaay bu am solo ba ñu am. sunu gan ñii nag yàlla dogal ñu jógee Gabon ñëw doon siyaat daayira Muxaddamatul Xidma ñu ginnaaw bu ñu saafoon rek sëriñ Afiya ak mboolem kilifa yi ñu fas yéene na jotal ay leeral ci lu jëm ci ñoom ñi seen taxawaay ba nga xam ne moom lañu yore foofu ci gabo ci mboolem nag jullit ya fa nekk yëpp rawatina taalibi Sëriñ Tuubaa fa nekk waaye ci turu sëriñ Badara Seen sëriñ Badara Seen ak sëriñ sëriñ Cheikh Mbeng ak mboolem kilifa yi ñu àndal xam naa ñoom danañ ci ñëw léegi ci jóge Gabon ñëw teewal fa ñeneen ñi ca des ci yàlla dogal ñu tàmbali woon seen yëngutu ci Gabon ci daayira Muxaddamatul ma ci koor gi ren jii ñu am yéene gën koo yaatal ci sëñ Badara àndoon ci ak sëriñ Moussa Dramé liggéeyoon ci liggéey bu rafet rafet ñu di ko soññi moom sëñ musa lépp lu mu ci defoon ak kaneen ku koy dégg ku dul sëñ Moussa nga gën ci dugal sa loxo te xam ne lépp ñëpp la ku ne sa wàll ngi ci looloo taxoon nag ni daayira Moukhaddamatoul Khidma baaxoo yàlla dogal mu am yéene yaatal liggéey bi ci diaspora bi taxoon tey jii bi ñuy wàgga boo ñëwee amoon ay carte yoo xamante ne niñ ko defee ci diaspora bi moom lañuy def tey jii ngir bëgg leen ko jëbbal bëgg nag képp koo xam ne gis nga ko ca Gabon bu yegsee ci yow nga xam ne lu jóge fii ci daayira Moukhaddamatoul ma la ma jëlale nga bokk ca waaye nga fas yéene bokk ci ña koy yaatal ci boo ci jokk ak jëwriñ yi ñu wax léegi carte la boo xam ne mooy carte membre bi nga xam ne mooy carte bi nga xam ne ku bëgg a bokk ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ci diaspora ci moom ngay dem ci ñoom ñi yor carte yi ñu bind la ci inscrire la ci bu ñu ci bindee jox la soro si carte bi at lay walaabal ni ñu ko waxee bu dee ci Europe di euro la bu ci dollar dix dollar bu dee ci Europe bi CFA cinq mille francs loolu lañ ko wecc ko bu at mi jeexee nga renouvelé waat ko même cinq mille francs bi bu boo bokkee ci daayira ba noppi nag mu des nag yow naan weer wu jot wala moo xam ne koy global at par at mi la danaa jox daayira Moukhaddamatoul Khidma sama participation ci liggéey bi ñuy def entretien jumaa ji ak li ci yëpp boo defee nag loola li dala deux mille francs jëm kaw loo ci man rek nga waxanteeg jëwriñ bi la jaay carte mu bind ko bu weer nga jox ko ko wala nga jox ko ci at mi moo xam ne lii yaa koy dugal ci daayira Moukhaddamatoul Khidma su noppee ci loolu nga xam ne am nga carte yi ba noppi loolu mooy addee bu noppee nag bu fekkee koor ñëw na wala màggal ñëw na loola kenn ku nekk yaay xool li nga jaayante ngir participer ko ci màggal gi wala gàmm gi ñu def wala wala euh, koor gi ñu def fii ci jumaa ji bu noppee nag kayit bii mooy kayit bi nga xam ne moom la ñuy ràmpali mooy ñëw ci jumaa ji sa tura ci nekk sa sant sa date de sa adresse sa numéro téléphone ak sa numéro carte ak date bi nga inscrit woo ci daayira bi ak ndax da ngay renouveler wala ku bees nga loolu lépp moo ci am bu noppee ñu yónnee ko ci daayira bi bu ko defee daayira bi ci fichier bi ñu yor ñu xam ne dëkk sangam ca Gabon diw sàngam date ni sa sàngam bokk na ci daayira Moukhaddamatoul ma ci date bi ngir ànd ko ñi nga xam ñoo nekk ci jumaa ji ndax sore gi jege dafa am jege gi sore am kii war a bokk ci nga xam ne dafa war a liggéey si war a joxe participation ni ñu koy defee ñun ñii yow nag yàlla dogal nga sori waaye teewul nga am yëg-yëgu ci ni Sëriñ Tuubaa waxoon ci jumaam ji ku ci feeñ-feeñ ba faw ku ci ne budutoo feeñ te feeñ googu ba fii may wax ak yow ku ci bëgg a feeñ da nga ci feeñ mu doon liggéey bu jafe nag ko xam ne borom pësteef boroomu dogu dong moo ci mën a bokk ngir liggéey ci Sëriñ Tuubaa kon nag sunu jëwri ñii ngeen di jàkkaaru lool saa bu ñu doxee ba yegsi ci yéen na ngeen xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma moo leen ubbil buntu ngir ñu dugg ci liggéey bi ngir liggéey Serigne Touba ñu ngi jaajëfal mboolem koo xam ne jàppale leen ci di ci jaajëfal nag ku ràññu ko ci daayira bi di Serigne Assane Diop liggéey bu rafet mu ko liggéey ci daayira bi ci yaatal ko kon bu ngeen demee daal mbokki taalibe bi ya fa nekk ak kuréel bu ñu mën a bokk jumaa ji moom jumaa yi ñëpp la aju du daayira sàngam nangam lépp ñëpp lu ne ku nee nga ci ñun dañ fa nekk di leen sàmmal di leen ko taatanal waaye ko dox ba ñëw am sa pas-pas sa bunta ngi ci bi nga na tax taxaw ngir liggéey liggéey bi kon ñu ngi leen sant ci turu mbooleem daayir Moukhaddamatoul Khidma di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal lépp lu ngeen ci yëngutu yàlla nañ ci tase ngërëmul yàlla ci bàkki Seexul Xadiim te fa ngeen nekk yàlla may leen fa jàmm may leen fa xéwal bu baax a baax ba ngeen bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu jàppandi leen bu baax daayira bi daal mi ngi leen tàllal loxo lépp lu ngeen xam ne suñu wàll la bu ñu ko waxee incha allah danañ ci taxaw taxawaay bu rafet rafet di wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmaan rahim laa hawla wala quwwata illa billahil wax ji awaay ji la sina daamoo fi xidmati wa ablu ma maaraamu inna la sina saaraho bi xidmati fa lahumoo diyaaran wasal jannati mbokki jullit mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di jaajëfal sëñ bi door daaneel kàddu yi muy sëñ Abdoulaye Bousso maam Asta yara def mu yor liggéey bi euh, jokkoole relation extérieure bi ak euh, sociale boo ko defee ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jaajëfal euh, di jaajëfal sëñ Afe di bég ci sëñ Assane Diop ak sëñ Jili mi ñoom ñëpp ñu ngi béggee bu baax a baax liggéey bi nga xam ne ñëpp a ko bokk am mbégte bu baax it ñëw ci séesu Muxaddamatul ma fii ci jumaa ji ngir jël si cërub Gabon ndax yaakaar naa ni fa fépp foo xam ne ay nit daje na fa di liggéeyal Sëñ Tuubaa tam jëm si ci jumaa ji yaakaar naa Gabon ci war a jiitu bu ko defee kon lii tey jii ñun waa Gabon yëpp ci ci kuréel yëpp moo xam daayira xasida yi la moo xam daayira soxna jaare yi moo xam mbooloo mu fa mën a nekk rek tey wuyoo turu Sëñ Tuubaa rek ñu ñëw jël si seenub cër ngir yóbbu ko àggale ko ca ñoom ñu mën a nekk ay membre yoo xam ne yu nosoo lañ ba di ci mën a def seenu ñaq ba lii nga xam ne moom mooy ñëw di Euh, defar di di di di yaatal jumaa ji ci euh, moo xam sellal bee moo xam ndog yi nga xam yu yaatu yi nga xam dañ ko fiy def te ñëpp gis ko moo xam ci fa côté social bi lépp loo xam dañ koy def ci jumaa ji rek euh, taalibe nekk ca Gabon seen yéene ja ñu amoon ci seen i xol bëggoon seen alal man cee bokk loolu mën a jàppale ci liggéey bi nga xam ne lañ ca defoon daaw la muy tuut tuut maanaam mu bana mu bañ a mat sax asaka ci lañ cay def ci at yee ñuy jëm su ko defee sëñ Badou seen mi àndoon ak sëñ Moussa Dramé ci weeru koor wi ñu jàll dox ci ay jéego loolee nag ñu ñëw bëgg ko fedd si waat jëwriñ ji fii ba bu ñu delluwaat Gabon mu mbañantee nekk loo xam ne sax lu ñuy xaar ba dat sàngam jot ñuy jóg di ko def la waaye ñoo am ay membre téeméeri carte yi nga xam jox nañ ñu ko taalibe yi ci réew mi yëpp man ko wecc ku ñu mën leen identifier delloosi ko fii ci siège bi ñoom seen addiya yi ñuy jël di ko jox ci barkeelu muy mën a agsi fii ñoom ñu di ko mën a vérifier di ci teg seen bët bu ko defee muy gën a jëmale liggéey bi kanam loolu daal moom mooy sababu li taxoon ñu ñu jóg ñëw si ñëw fi tey ginnaaw bu ñu gisee ak sëñ Afia waxtaan ak moom ah fekk fi tey sëñ Abdoulaye Bousso mi ak sëñ Jili ah, bu ko defee euh, incha arab bi ñu am pas-pas bi bu baax a baax. àndoon nañ fi ak sëñ Moussa Niang kàllaam mi mu doon tamit jëw jëwriñ ju am Pastef doon trésorier ci daayira xasida bu nekk Gabon ak sëñ Mbay Bey mi nga xam ni tamit moom moo toog nii moom it ñu nekk ak moom Gabon moom it mu nekk koo xam ne ku actif la foofu ci liggéeyu sëriñ Touba bi ak sëñ Fallou Faye mu doon koo xam ne moom it jàmbaar la sëñ Jil Dramé moom moom waa Touba la waaye Gabon Mayomba da koo likkaleeg Gabon ba daanaka lépp lu ñuy yëngu tamit bu nekkee fii Touba ñu di ci ànd ak moom su ko defee kon ñu àndoon ñëw fii daal euh, di nit ki. Euh, lu loo xam ne euh, sa yaakaar yi àddina ak alaxira da caane nit àddinaam képp sax daan na ko jaral mu mu jaayante ci ak ak ruwam jaayante ci lépp mu jaral ko lépp ndax euh, sëñ bi la buur ya daan wax ni di xas naan bu subaa bu ma demee barab dinaa faatu mbaa ma def nangam te ñooñu àddina dong lañ ci waroon wut ñun sëñ bi war loolu ñu àddina ak alaxira kon engagement lañ jël fii boo xam ne yéene nan bu ñu demee mbooleem ña nekk Gabon likkaloo ànd ci liggéey Moukhaddamatoul Khidma bi ba gën a feeñal seen Pastef gën a feeñal seen yéene te di leen ñaanal yéen it eh, nii ngeen fi toog a yoral nu ko suñu borom defal leen wér defal leen feex ba bu nu fi dellusiwaatee ci ci waxtu wi déwén maanaam liggéey ba fa mu toll woon gën a yokk bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ bi ñu ngi am mbégte bu baax jërëjëf. jërëjëf